Thione Seck moom nit ku baax la nit ku baax la nit ku laabir la nit ku oyof la nit ku am dal la nit ku am diine la maa ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla fay xolam yal na ko yàlla yërëm bu baax a baax a baax a baax a baax yi yéexiñu si barke Serigne Babacar si manuma woon contrôler sama bopp si moom parce que dama ko bëggoon man ay woyam kese laa doon déglu ay woyam rek moom laa doon déglu ama ay temps gars yi dañuy way loo xam ne kenn du ko déglu mais moom bu wayee rek ñëpp koy déglu boo xoolee télé yeeg rajo yëpp essence yi wayam ñuy teg nii daa am sens day day wane ay ay images yoo xam ne ay référence la quoi ñun xale yi ñun ndaw ñi dañ see war a jëf jàngat. coon moom lépp mu baax. le parole yi dañ ko daan wooyee depuis boobu ba léegi kaset bu mu mos a wooyee rek téere lay doon mbaax lañ xam ci moom jub nangoo def lu baax nangoo jaamu yàlla hmm? ànd ak ñëpp waaw mbokk ak ñëpp liñ koy def daal di ko ñaanal yàlla xaari ko àjjana. ñi fi bàyyi yàlla teg ci seen loxo sàmm leen làq leen fa yàq yeegul. Papa Thione xam si moom lu baax di def lu baax yàgg yàgg def lu baax loolu laa xam si moom te yàgg maa bégal it dama doon wax ne su ma yàlla wërsëgee xaalis dinaa ko jël moom ak Assane Ndiaye ñu woy ma man Thione dam ko yàgg bëgg dama naan fay samay xalit cent franc deux cent pour di ko déglu seeni portable. man wóyam yi daal wóyam yëpp neex na ma. woyam yëpp neex na ma surtout doomu baay bi parce que man dama am ay doomu baay sam papa man maay taawam mais dama am ay doomu baay man ak samay doomu baay aussi benn lañ amuñu xàjji ak seen man ak ñoom benn lañ xam nga doomu baay bi daal neex na ma trop woyam yëpp ma neex man woyam yëpp laay déglu. waaw bu mu way yonente bi boobu moom dafa neex trop tey bu may ñëw nii sax moom laa am déglu sama yaram dafa daw si loolu quoi coon moom lañ koy ñaanal yàlla rek. ay ñaan moom xam nga du doy quoi mais nañ koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana rek. am yëpp a ma neex yaay booy surtout bi mu ne woyam boobu muy delloo omage xaritam bi mu doon tëdd bokkam moom fi mu doon tëdd man sama boobu dama koy xoolee sama sama papa dama koy xoolee ñi ma doon nekkoon doo SOS tey ñii gaañu nañu tey xam ne SOS ñëpp xam nañu kaa yu fa nekk kon tey su ma déggee sama boobu sama xel day dem si coon sek moo tax mu gën ko bëgg. comme daal naanaa la daal woyam yëpp ma neex mais bi ma bi ma gën a neex ci moom mooy bi ma naan sax yi ci suuf ah tey dindi néew xanaa ñoom duñu woor boobu woy bu mar frappé la ci woyam mi ah, ak bi muy woy euh, xaritam boobu hmm, doomu yaay Mariam Diaw boobu boobu di ngeen koy dégg ne bi naan xaw ma kañ la xaw ma kañ la may fekke mais dinaa fekki sama waaja xam nga ni ñëw loolu boobu ñëw na tey maanaam li mooy yëpp téere daal ma ci gàttal li mooy yëpp téere la moom da digle liñ naan xam nga woy dafa war a di yeete coon nag woyam yëpp da daan yeete di digle woyam yëpp nga mën a jëriñoo sax yi ci suuf safóor bi ah, doomu yaay Mariam Njaw woy bi mu woy Limaamu Laay woy bi mu woy Ahmadou Bamba moo ni nel ceeb yi moo ni nel bool yi yëpp dafa am solo